salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci taamu bi ngeen taamu programme Obelus TV tey ñu am mbégte contentement ànd ak yéen seen émission bénal Art muy émission bi nga xamante ne da leen di fekk seen makkaan waxtaan ak yéen ci li ngeen di yëngu moo xam musicien bi la moo xam artiste comédien bi la moo xam danseur bi la moo xam képp ki nga xamante ni da ngay yëngatu ci art dinañ la fekk sa kër waxtaan ak yow ni ngeen ko bëggee noonu laa koy defee fii lay xewee ci obulus TV tey nag ñu am benn artiste comédien bu mag bu ñëpp ràññee ci milieu cinéma ak télévision ñu gisoon ko mu def prestation bu am solo ci benn série bu ñu naan un café avec du ma def lu du bàyyi leen ak moom mu présenté wu. voilà donc euh, Milkzo n'est-ce pas Moussa Seck moom mooy ça c'est le vrai nom alias Milkzo hein plus connu sur ce nom qui filme un café avec voilà donc euh, Milk minini, n'est-ce pas dit content torop qui participer à émission n'est-ce pas content de torop torop voilà Milk est là <laughs> pour répondre à vos questions <laughs> alors Milk euh, at c'est passé ñu série un café avec bu série bu ah, nga def est-ce que mën nga ñu wax kan Milk Zo kan moy Milk Zo <laughs> Milk Zo Milk un café avec mon ko ah. <laughs> voilà un café avec mon ko donc Milk Zo moy li ah, un café avec quoi voilà lekkatu pomme yi xam nga ak raisin yi bëgg fruit yi <laughs> xaritu Boubacar Diallo <laughs> voilà c'est ça quoi c'est ça Milkzo waaw. Hein. mais est-ce que mën nga ñu wax euh, lan moo la dugal ci cinéma. donc suma histoire ak cinéma déjà man dama ko bëgg dama ko bëgg depuis bi ma nekkee xale ah bon mais benn bis nos chemins se sont croisés parce que dañ ma woo n'est-ce pas pour ma ñëw un café avec xam nga fait un entretien avec Leuz n'est-ce pas ci moment yooyu moom moo fa nekkoon Leuz voilà donc nous liggéey bi ñu il m'a fait faire les choses n'est-ce pas peut-être que j'ai répondu n'est-ce pas bon après ma ak histoire bi noonu la commencé quoi mu ni ma yow dama lay soxlawaat ma ni ko grand boo ma soxlawaatee amul benn problème <laughs> boo ma soxlawaatee rek ma ñëw ñu ñu ñu jouer quoi donc ça s'est passé comme ça ça s'est passé comme ça. léegi nom bi fan la jógee. lan moo tax ñu naan Milkzo. <laughs> waaw mais tur bi tur bi Bokar moom ko tuddee ah ma ni ko mais yow pour lan ngay tudd sa tur ba pare yow Boubacar lañ lay wooyee bàyyi ñu wooyee ma Moussa mu ne ma non gars kenn du la wooyee Moussa Milkzo ma ne ko ah ok <laughs> grave voilà donc noonu la Milkzo ñëwee. ba nga ñëwee rek subitement rek nga indi kanam bu ñàng daal ñëpp naan waaye kii moom ban genre nit la. est-ce que yow da nga mësa def prison wala affaire yi daal ñàngoon na trop franchement nga dugg rek kati ragal la si saa si. <laughs> waaw loolu gars yi dañ koy laajte scénario bi man artiste la boo bindee scénario proposé ma pour ma jouer jamay damay damay voilà su ma ko mënee damay jouer quoi donc on m'a fait jouer un rôle de n'est-ce pas prisonnier libéré n'est-ce pas bon ma joué ko.

voilà après je suis ressorti ma dernière affaire quoi bah, voilà donc ça s'est passé comme ça donc j'ai eu à faire quelques jours de détention voilà. alors Milk nous nañu ñu mais série Milk Milk Milk Milk secret. secret bon maman du ma du secret parce que xam nga lolu dafa andak dafa andak quoi da mais à chaque fois dañuy voilà dañuy quoi xam nga ko donc c'est vraiment naturel pour moi affaire la bo xamni voilà fay am ci suis quoi voilà man spécial ci mais en tout cas je suis ak borom raisin yi man li may joué man lépp ay lekk la lekk yu neex donc pour moi je me dis que je n'ai rien fait de spécial quoi. waaw <laughs> mais <laughs> noo ko créé noonu. <laughs> waaw mais xam nga itam on n'est pas obligé xam nga di gëmloo xale yi yoo xam ne aussi quoi est-ce que tu vois chacun a une manière de sortir d'aller où il veut par rapport à ses revenus mhm. bu fekkee ne yow. tàng naa nga war a mën a dem xam nga am ay brochettes yu cool à 700 n'est-ce pas di nga am sa boisson ci 1500 nga lekk si xam nga am dessert <laughs> est mais nga dem foofu moo ba benn moment bu fekkee ne loolu nga am nga dem foofu moo gën koy ñoddi loo xam ni. donc affaire de complexe là, quoi j'ai fait une chose pour peut-être y a pas a pas beaucoup de gens qui osent le faire mm-hmm. voilà donc beaucoup de ça marque quoi après quoi et pourtant voilà xam nga lépp si jàmm dem naa je me suis amusé ak xale bi. ci tànganaa bi. <laughs> te xoolal loolu sax la xale yu góor après moom lañ jël. bu ñu ànd ak seen copine yi dañ leen di dugal. ci tàngi si xamuma loolu. voilà c' est ça c' est ça itam àddina man xam nga xam nga écriture bi scénariste bi moom moo koy def man je viens j' applique. mais Dieu merci ba ci lim ma joué waaw li ma lim ma joué loo quoi. donc ce sont des gens aussi à féliciter. Mm-hmm. n' est ce pas les gens qui sont derrière n' est ce pas. Mm-hmm.

voilà mais sama chemin ak raisin ak ak de dañuy dajé quoi dañuy dajé quoi voilà. gis nañ la tamit nga am ben entente euh, ak euh, DJ Boubs lan moy sa relation ak DJ Boubs. waaw ah, fraternel parce que biñu xamanté xamante na n'est-ce pas boobu ay gone lañu toll ñu nii. n'est-ce pas ça fait plus de trente ans n'est-ce pas qu'on se connaît xam nga loolu yàgg na quoi. Hein? voilà et on a toujours entretenu de bons rapports loolu mo am ba légui suma frère la xamna sama kër xamna këram <laughs> voilà donc c'est ça quoi man ak voilà ba xamanté suñu ñaari papa yi ay enseignants lañu on s'est retrouvé à la cité des enseignants voilà donc papa am nek enseignant am fi kër sam papa nek enseignant am fi kër. sànq dégg nañ la ci say wax nga ne da nga bëgg lek da nga bëgg ay raisin affaire yoy non ñu gis la ci koor gi nga def ben affaire bu nice muy Moussa Tàndarma explique ni tuuti ci Moussa Tàndarma. waaw Moussa Tàndarma bi aussi ay boy ni ma ni ma lës lekk loowee raisin non la ma sama ay boy voilà ñom Mbacke je les félicite ñom itam parce que ñom ñoo bind scénario bi ils m'ont appelé.

Euh, ci un film bu Mbaye Fall réalisé muy xaar yàlla naka nga ci cinéma. d'accord voilà donc Mbaye Fall maa koy féliciter moom itam bon xam nga par exemple li cinéma daf ma dab ndax un café avec lañ ma petit écran n'est-ce pas ah? te rôle proposé ma def ko après ma continuer jouer avec un café avec bon un moment itam passion bi daf lay n'est-ce pas découvrir le monde est-ce que tu as donc suite à cela un moment dafa am une pause pour moi faire un café avec voilà donc si vous pause pour mon je vais en profiter pour aller apprendre un peu n'est-ce pas le cinéma donc rapidement je me suis retrouvé avec des cinéastes n'est-ce pas si là, demain, à école di Boy euh, que je remercie beaucoup n'est-ce pas ciné banlieue Madame Fofu donc j'ai intégré intégré l'école wa di jël suma ay cours bon ci biir lolo après la ma donc c'est ay ay ay proposition la quoi mbay itam mom mo bind scénario après daal ni ma ni mais grand qui bu ça sama sago ñu joué quoi j'ai lu le scénario c'était vraiment voilà vraiment nice donc après mon ci wit ma ñëw ni dadi voilà tourner film y yalla dogal na Maman a gagné voilà premier prix de l'ambassade de l'Espagne n'est-ce pas avec euh, le concours de Mobi Ciné monsieur Tcham. n'est-ce pas voilà donc nous, nous cinéma voilà noonu laa duggee ci biir cinéma. film bu nice ah. nga bi ah, <laughs> gis nga xam nga boobu c'était pas Milkzo ah boobu est-ce naka nga naka nga gisee milieu cinéma bi. waaw ah, bon milieu cinéma man euh, bi ma ci duggee yàggul. mais xam nga d'après information yi ma am des déglu ay FESPACO xam nga affaire ciné surtout pour le cinéma nga gis que ça promet quoi ça promet parce que un gars comme Alain Gomis n'est-ce pas filmam xam ak ñeneen ak y a des prix qui ont été ramenés ici au Sénégal bon c'est dire que le secteur de développement là man lolu la quoi le cinéma c'est un facteur de développement en même temps et Sénégal brille na artiste parce que euh, bi ma ni ma ko yëgee moom comme dama joué ci téléfilm dama gis ñaata nit après ño bëgg ño bëgg taxaw pour jouer ci téléfilm et ces mêmes gens là ay acteurs lañu rek bo leen wowe ci cinéma dañ lay wuyu aussi donc euh, je pense que euh, secteur la bo xamni gaay war nañ ko gëna ñëmé quoi war nañ ko gëna ñëmé parce que on a des ressources n'est-ce pas voilà gars war nañ ko gëna ñëmé xam nga te ku ci liggéey bu baax rek euh, dang koy gis quoi parce que je pense que les téléspectateurs aussi ils sont pas du xam nañu du travail bien fait mm-hmm. xam nga ak liggéey bo xam ni c'est pas bien fait et puis bo defee lu baaxul dañ lay zappé mm-hmm. donc naka gars yi ñeme jàppale réalisateurs yi jappalé scénaristes yi daf ci xaalis je pense que mën nañu voilà mën nañu am ay ay ay boy yu bari ñu récupérer ñu jouer ci ñu ñu ci quoi voilà téléfilm aussi bon depuis que on café avec daal di ñëw xam nga indi banane façon indi téléfilm xam nga gars trop maîtriser guñu torop torop ah, ah, ah, sama idée loolu la il maîtrise pas l'écriture du scénario n'est-ce pas pour un téléfilm bon, xam ni mën na def 2000 épisodes ça dépend est-ce que tu vois loolu banane façon bind bu bees la boo xam sénégalais il faut que nous maîtriser ko pour maintenant voilà gën a gën a bind ay affaire voilà ay histoire yu sensible c'est yoo yo xamni donc man lool la di si ñom lu bees la si ñom nigérians yi dañ ñu ci jitu moo raison pour laquelle gis nga sen téléfilm ni mu demee sud africains bon ñun Sénégal ñi ngi ñi ci duggu ñi ci avancer avancé donc voilà na gaay audacieux bind bind bi ñi ci wara japp japp ko parce que man passion bi duggu na ma légui man légui ci lay liggéey n'est-ce pas te c'est pas facile aussi hein. voilà. donc na ko gars yi ñeme def ci xaalis waaw comme ni nga rek c'est pas facile la gis nañu léegi koo gis la mi ngi yëngatu ci cinéma am ñoo xam ne jànguñu ko sax dañuy ñëw rek dugg ci nii lan nga leen di wax ñooñu waaw parce que xam nga loo gis itam yàlla dafa am lenn lu muy maye am lenn lo xamni sa ça s'acquiert yow par la à force de travail da koy am donc nit ki da ngay def sa warugar moy bu fekke ni docteur nga bëgg nek da ngay dem université nga jangi bu fekkee ni acteur nga bëgg nekk si tu saisis l'opportunité am na lu la ci yàlla may ok d'accord mais si tu saisis si tu saisis l'opportunité demal ci école nga jàng est-ce que métier bi mi ngi fay. bon métier bi métier bi mi ngi fay booy liggéey <laughs> donc je pense que fan yi gëj nga ma gis télé. donc métier bi fayul dara waaw <laughs> ba may gis daal. Mhm. waa gis ni que métier bi mi ngi fay quoi à part ce métier acteur est-ce que y a un projet qui est bon à part ce métier acteur oui. damay en ah, man damay d'une manière spontanée quoi comme ça glace ak crème. voilà glace crème damay 6 mois par exemple jaay glace ak crème. xam nga yeneen yeneen trois mois bon mën naa ko toog nekk si sama activité artistique parce que maa ngi jéem a bind estua voilà maa ngi jéem a améliorer n'est-ce pas suma ay jeu d'acteur yooyu yëpp ci ak ni ma koy defee n'est-ce pas voilà mais damay jékki-jékki rek am dilan di job comme voilà di voilà di def sama business quoi léeg-léeg ma nekk si sama bopp voilà mais aw ma dara lu fixe quoi loo xam ni voilà c'est ça quoi. nit ku moom Baye Fall la. nit ku moom Baye Fall la quoi. waaw moom la gars yi di wax daf ne Baye Fall bi ci un café avec Baye Fall bi Baye Fall bi Baye Fall bi waaw yàlla ah, baax na. da nga da am na koo doon ragal café avec. booy bu ñuul boobu noonu noonu rek. góor bu tàng boobu noonu. daf rek daf ma sonal may lekk raisin quoi voilà xol bi day jóg <laughs> lan nga jëncal waa Sénégal ndax boobu léegi ñu ngi lay xaar. <laughs> gisaguñu dara lan nga leen jëncal. waaw bon xam nga man duma producteur hein, n'est-ce pas man acteur là. donc instant yi nii gars yi déglu rek n'est-ce pas mais déjà ni, xam nga il faut que donc ñu may ma temps terminer avec un café n'est-ce pas donc loolu bu féetee bor après ñu xool mais comme instant yi moom moi mooy priorité ci sama lepp quoi n'est-ce pas donc euh, maa ngi xaar ñu terminer ko buñ ko terminer je pense que y a y a des projets qui sont là j'ai vu des cinéastes yo xamni ni waxtaan nañu def ay échanges n'est-ce pas voilà donc ay léeg-léeg nga gis kuy def téléfilm itam bëgg la ci boole bon même man euh, fi ne toll je suis pas prêt n'est-ce pas pour waaxu daal déedéet. voilà comme je suis associé au monde du cinéma bon. c'est vrai que mënuma toog nii am na ay projet et tout ça mais pour le moment maa yam ci un café avec nest ba ñu terminer quoi ba pare. mil ko sa mot de la fin. waaw suma mot de la fin moom mooy valla di di ñaanal sénégalais yëpp déjà nest ak n'est-ce di leen nuyu. nest di ñaan pour que le monde du du cinéma n'est-ce avancer. nest pas ba pare di leen gërëm ci émission bi xam nga di leen ñaanal itam émission bi laaw jëm faw ci kanam ndax lu am solo la xam nga artiste moom dafay am ay facettes yu bëri quoi là vous venez vous me trouver chez moi xam nga waxtaan ak man ci waaw parce que am na ay ñu ma bëgg dégg xam nga xam ne que peut-être voilà même mil ki voilà quoi voilà voilà donc maa ngi gërëm Obelus TV yi mhm. nest pas ak euh, émission bi benn Arts mhm. voilà di ñaan ngeen yokk jëm ci kanam je pense que voilà ba télé bi daal di taxaw ak yooyu yëpp quoi. <laughs>